wa man ixtafa asaarahum ila yowmi rabbil alamin wa baad man kaana yarju liqaa rabbihi falyacmal amalan saalixan wala yushrik bi cibaadati rabbihi axadan salli ala gawsin wa gaysin wa giyaas wa salli man yaaman maxa bil abdiyaas barke borom Tuuba mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi leen di nuyu ci turu daaira safinatul amaan ci njiitul Serigne Ndongo Ndiaye bu dee wàll nga féete ca Bawol bu dee fii ci Dakar. ci jiitul sëriñ Ibrahima Dieng waaye ci turu mboolem taalibe sëriñ Touba yi nekk ci kuréel gi ñëpp noo ngi nuyu ko fi te di la ndokkeel kàddu yi ñu ciy yëkkati nag mooy kàddu daayira bi na naa kàddu yu soññe yi dañ koy bàyyee asatis yi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi te conférence ak waaraate ci diine di seenub liggéey su ko defee nun lu jot li kàddu daaira am na lu ci jàlloon ci jotaay bi amoon ci weer wi jàll yàlla dogal loola fekk nu fi woon waaye fa tabarakallahu sëriñ Ngom ñi ngi mii nga xam ne moo nekk ci jot likukaay gi nga xam ne moo gën a yaatal liggéey bi ci jamono bii nu toll tasaare na ko ba nu jot ci kàddu yépp nu teewlu ko mu dëppoo ak ngëneel kon ñu ngi koy jaajëfal di xam ne lu tuuti ci daaira bii ni mu sosoo ak fi mu sosoo ci dënk mu mel ni bi muy sosu ay jëmm ñoo xelaat ne mboolem liggéey Serigne Touba yi yëngu ci tund làmbaay yëpp war nañoo mën a takku nekk wenn say seen jëf di jenn ñu jëme ko ci Serigne loolu mooy objectif bu njëkk bi muy pas-pas bu njëkk bi bi ñu ko xelaatee waxtaane ko daldi sol dàllu amat ko yàlla def ci ak jàppandal jotaay bi passé doon nañ ko leeral waaye moo ne fu mu nekk bu maane ñëwee day rab man dama fekke jël bonub jotaay bi nga xam ne ci lañ doon sos liggéey bii bokk ci ña ko doon sos keroog bañ yi ci tund làmbaay juróom benn dëkk ñoo fa teewal juróom benn dëkk yooyee ca ndaje mooma xoccan na lool ci ab gis ba ña ko doon nos bëgg a ko ndax booba woote ba siiw na tasaaroo na ca làmbaay waaye daje ga moom juróom benn dëkk a teew ma ne leen mbootum daje bi daa nuroog mbootum bay'atu ridwaan ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi jullit ñi jaayanteeg moom ci bay'atu ridwaan sittatu nafarin lan tàmbalee juróom benni kuréel yu bàyyi ko ci ma Madina ci diggante muhajirin ak ansaar ak awsiya xasra wala booba sax muhajirin ak booba lansaar amagut mi ñi ngi mu ngi woon biir Màkka juróom benni giir ñoo ñëw jaayante ak moom leen kon kuréel gi wane na ne day dem ndax ni yonent bi sose woon lislaam noonu la kuréel gi sosoo kon nañu jaayante rek te tàmbali ci tënk rek ba ñu tàmbalee noonu la liggéey bi doxe ñu door a dem ci saaxibul fadila cheikh sayidul muxtar ridwanullahi taala ali fekk ko ci kër ngànd keroog nii ma yore micro bi di wax maa sukkoon ci kanamam di wax ba ma ba ci ne ko mbooloo mi kat dañu koo nos ngir léegi Serigne Touba yi nekk ca tund Lambaay yëpp ñu benn ne ko takk ko mu nekk wenn say wax ko wu jébbal la ko jotee ñu àndandoo ñëw jébbal la ñu ci doon sàkku sa ndigal doon ko lépp moomam mi aw tur bàyyiwul sama kàddu mu daaw waaye daa rombale kàddoom sama biir kàddu ndax ne safinatul aman moom Cheikh Sidil Muxtaar bi ne safinatul aman ci la sëñ Cheikh Coro daal di koros bind ci géej gi mu gi mu yoroon sëriñ bi baamuwaatul baax ba sama kàddu daanoo sëriñ Cheikh Thioro teg ca kàddu yi cant yi bàyyee ko ci sëriñ bi jëm si ci mbooloo bi daal di wax ne sëriñ bi nee na am ngeen ci liggéey bés ni ki tey te it da ngeen xam ne lu ngeen ciy liggéey moom ngeen koy liggéeyal ndax moom kat benn la taalibe yi sëriñ Tuubaa yi ak dajale liggéeyi sëriñ Tuubaa yi rek moo ko bàyyi fi mu toog ak sàmmal ko daal di wax bés ni ki tey sëriñ bi wax na ne tudde na mbooloo mi safinatu aman kon foofu la tuuboo jógee yéen xewal ci jataay bi yëpp woon bari nañ ci mbooloo xay xëy na danañ ko jot lii ba ñëpp ci bëgg lu gën a leer boo leer loo ñu leeral ndax dañuy njëkkante waxtu bi ñu fa jógee ñëw ci lañ daal di sóobu taxawal bisub xasiida bisub xasiida boobu di benn liggéey boo xam ne ci mbooloo daje durus xasida ni ko jamono baaxoo waaye danu ne lambaay dañoo am bis boo xam ne ci yoonu murid keroog ba yonent bi alayhi salaatu wa salaam di gàddaay wala génne Màkka dem Madinatul Munawwara ni ko noonu lislaam yi taxawoo won ngir bëgg a faagaagal bakkanam mu jaayanteeg yàlla boromam ci fas daaw bi ma tut ma fas yéene def li ko boromam digal te du faale way bokkaale yi yàlla lam ca jànkoonteel ca xeeti coono moom saxaaba ya ba gàddaay nga am ba taxaw loolee moo amoon làmbaay ci yoonu murit muy bis bi teeñ taloor kalaame woon seexi bawal loolu buñ ko toppee ci jataay bi mën naa yàgg waaye ngir gàttal rek Serigne Touba bi mu sancee Daaru Salaam 1886 ce ca déwén sa 1887 la la France nommé benn président bu ñuy wax euh, Sédou Carlo 1989 kàllamu làmbaay ba man ñi dëgëree ci jum sëriñ Tuubaa ak liggéeyal sëriñ bi mu xëy wooru leen ci benn ci moom mu ngeen di dégg histoire nettali ko maam Moussa Ka wa boole yàlla ngeen di mooy dafa gàddu fetam gàddu saako su su ñaw su gudd daal di def wurmal nasaraan fii fi làmbaay moom mënoo fi am wàll looloo waraloon su xasida bi ñu def ko ay at waaye ci biir mbooloo bii jataay bi nu toog nañu bàyyi xel ne objectif la mbooloo bi am ndax wax naa léegi jëwriñ Serigne Ibrahima ne ko man ci sama analyse bopp en tant que kuy gëstu xam-xam damaa seetlu ne yoonu murid at mu nekk mbooloo sosu waaye at mu nekk fukki mbooloo tas loola nag la koy sabab ci sama analyse man laa yor moo di ñaare bu ñuy samp mbooloo mbaa ñuy sos mbooloo dañ koy sose pësteefu kese ak aal pësteef ak aal nag lu tax def saay bu aal te wàccee nga bàyyi ni ki nga mel ni woon ku doon waxtaane sëriñ bi ba yàgg nit jiir ne dellu ci du te yenn du ca fanaan bu aal ngay rees rek muy wàcc di ñëwaat di toogaat ci mbooloo moom waaye fi ñu toll nekkatul pësteef ak aal kese waaye daa fu jamono toll ñu war far yóbbu liggéey Serigne Touba te loolu mooy xaar ci ñoom waaye xaaruñ ci ñoom rek dajaboon naan kafe jàng xasida durus ku a def déedéet bu doon loolu la ñu yem ca suñuy néeg baa ñu yem feneen kafe tubaab boo génnee kenn ku nekk yaa ngeen doon lu sa kër loolu nag ci biir gisiin bi ak analyse bi da cee bokk ne lambaay a tey jii boo boo boo boo nattee jamonoy Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane ak Cheikh Aliou ak Serigne Mor Mané Mbaye ca biñ ci moomee ba yooyu bu ñu jógee doom yu baax mi lañ ciy xaar mooy lan la suñuy bàyyi defoon wala suñuy maam ba mën a yëkkati Cheikh Abdou Lahad Mbacké jëlee ko Touba bu ñëw Lambaye def ko ñetti guddi loolee la xaar ci booloo mi ñu defal Sëñ Tuubaa ñu toll ba bala ñoo bala ñoo faatu ci seen sàppe soo xam ne nag ay sunu yitte mooy faatu ci toolu Serigne Touba bu kenn arrière bu kenn dellu ginnaaw te lu dox ci suñu kanam nan jaar ci kanam kaw ndax Serigne Touba loolu lu digal maa ngi bi mu di tarbee dama na ngeen roy ci saxaaba yi tax ñooy seen bàyyi ci diine saxaaba yi nag mosu ñoori génne ci toolu lislaam ndax usulun alal aada masaafihu fi tujaab wa kullun sujaa'un ra'sa zil kufri yajza'u la leen Serigne Touba teg usulun ma tey yàq si doom suuf te